ndaanaani làmb lañu. mbay dikkee ma nii. ñaari ndaanaan lañu. diggante Modou Lo diggante Modou Lo ak Bébé Balla waaw waaw jinne la combat ndaanaan la. Balla sokk na ah, waaw waaw dooraat na droite mais dalul de ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo jege woon doon nañu attention oh Bébé Balla même ne mel ni ku jëm ci suuf di def yëf yi jinne mais demut Bébé Balla door na gauche droite booy xool nag Basirou Bébé Balla moo dirigé combat bi.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 jinne la kon nag man fulla ca la muy def moom tamit. danaa dem bokk na ci combat bi dàq ci journée bi diggante Modou Lo Paris ak Bébé Balla oh oh attention Bébé Balla ngay caxabal Modou Lo koy jéem a meer da ko bëgg eto da ko bëgg a yëkkati bu ko yëkkatee ba mu mu taf ko ci kawam caxabal ko mbaa weeru attention Bébé Balla ngay plaqué ak oh oh technique la ko daane cay Bébé Balla kenn du Balla yaay ndaanaan oh Bébé Balla daan na ko doo pare da koo caxabal ànd ak daan ko waaw waaw xale baa